ku mu samay mbubb boo ko sutee taxawaayit boo ko solee mu jot wallaay may la yàlla fay li mu jëf may la yàlla fay jiitu woon di fi jëf kenn jëful lu mel ni li mu jëf sax na ruuy fekki ko mbay la waaw la yàlla fay li jiitu woon fi jëf kenn jëful mu jëf tax na ruuy fekki ko waaw mbay la am dallaay nu santat am dallaay am dallaay moom la yàlla may li mu may yàlla na buur bi fay ñi fi xëy di dundal sunnaam bañ ko am dalay nu sant waaw am dalay nu sant waaw am nu sant waaw am dalay la may li may yàlla na buur fay ñi fi di dundal sunaam bañu ko may waaw am dalay nu sant moom la yàlla may li mu may yàlla buur bi fay ñi fi xëy di dundal sunaam bañ koo mbay mbay la yàlla may daraj mbay la yàlla mbay la yàlla mbay la yàlla may darajaam xëy dëppoog jëfi xalimaam alquran abi dëkkandoom ñoom la jëfe ràññ ko mbay la waaw may dara xëy dëppoog jëfi xalimaam alquran abi dëkkandoom ñoom la jëfe ràññ ko moo tax jumtuwaayu xaw jumtuwaayu ali jumtuwaayu waaw jumtuwaayu xaw su la mbay xus ba daj kemam na mu day kenn jëful ba teenu dem siyaari ko mbay waaw jumtuwaayu xaw xus ba daj kemam na mu day kenn jëful teenu dem siyaari ko mbay xam nga mbay du jëw du xool waaw mbay du di ñoñam loo ko def mu muñ ko ngoram na ruuy nëbb ba dem gaañu jiitu woon gën koo mbay le waaw mbay du jëw loo ko def mu mun kondoom na daruy nëbb ba dem daa ñi jiitu woon gën koo mbay waaw mbay la yàlla mbay la yàlla xam nga mbay la yàlla waaw mbay la yàlla may li mu may dét di may keneen lu ni day may tii mi may la ko may ay mayam du wàññi ko mbay le waaw mbay la may keneen lu ni mayu tiimi may ko may ay mayam du wàññi ko mbay le wàllu diine am wàllu diine wàllu nguur gi diine waaye wallu parti bi wàllu diine waaye wàllu Abdou Diouf wàllu diine wàllu Abdou Diouf wàllu nguur gi wàllu diine am na ci cër wàllu nguur gi am na ci cër te waawan mooy jëf fa ab cëram du wàññi ko mbay na yaa xam nga wàllu diine am wàllu nguur gi am na ci cër wàllu ëtt bi mooy joxe cër ab cëram du wàññi ko mbay na góor ga fam na cër dugal mbay fam na cër mbay fam na cër may sañay yeyoo ñëngërëm waaju ga di xañ ma salaam su ñëwee gàgganti ko gi fam na cër dugal may sañay yeyoo ñëngërëm waaju ga di xañ ma salaam su ñëwee gàgganti ko daala jàngee Mansuuray bindal baara jànge Mansuuray bindal daara jànge si Musambay bindal daara jànge Mansuuray bindal daara jànge si Musambay bindal daara jànge Mansuuray bindal daara jànge sambay bindal ku fa ku fa ñëw daara jànge suura gaaña fa teew man suura yi ku fa ñëw kàggu mbay si timbi na waaw doom ju baax gën na ko bay la xam nga sóora mi muyul xam nga sóora mi muyul xam nga sóora mi muyul xam nga sóora mi muyul xam nga sóora mi muyul xam nga sóora mi muyul xam nga sóora mi muyul xam nga seen man sóor muyul daara jàngi kanam laaj du bañ ma salaam taaru mbay si teggiwu ko sooro rus na raw du sooro gëm na raw du sooro rus na raw du sooro gëm na raw du baax fonk daala lewatam def ci bañ ko jam moo taxit wegef na ko mbay soora gëm na raw du baax soora rus na raw du baax fonk daara jaay la tam def jomam ci bañ ku ko jam moo taxit wejef na ko may lay mu toog ci Mansuur si yaa si Mansuur si yaa ma tangoy si Mansuur si tam nga na mbay lim sa nganeel ma ne fu ko mbay lay Moustapha cërëm Seydi Jamil cërëm Serigne Moustapha cërëm Seydi Jamil cërëm Serigne Moustapha cërëm Seydi Jamil cërëm Serigne Moustapha cërëm Seydi Jamil cërëm ku ne ñaan nga am sa sa sa njaboot doxal ci sa tur moom la am te waxal na ko may la Moustapha cëram Seydi Jamil cëram Serigne Moustapha cëram Seydi Jamil cëram mën ku ne ñaan nga am sa sa kër sa njaboot doxal ci sa tur moom la am te waxal na ko may ne aji abdu soppuna mbay aji abdu soppuna mbay aji abdu soppuna mbay xaar tijaan yi neex na fa mbay bisu siyaar ba neex na fa mbay sawiye mbay si neex na fa mbay moom këram ga neex na fa mbay moom sawiyem ba neex na fa mbay ufu jirim ya neex na fa mbay xaar tijaan yi neex na fa mbay aji abdu soppuna mbay xaar tijaan yi neex na fa mbay bisu siyaar ba sawiya mbay si moom këram ga aaji abdu aaji abdu aaji abdu aaji abdu yi bisu siyaar ba sawiya mbay si moom këram ga moom jàkkam ja yilif rawdom moom jirim yi ak sëtëm yi xaar sëtëm yi xaar sëtëm yi xaar sëtam yi xaar yi doomam xaar sëtam yi xaari doomam xaar sëtam yi xaari doomam aaji abdu xaar tijaan xaari doomam uf sëtam yi ufu këram ga ufu jàkkaam ufu rawdom xaar sa tëm yi yal na yàlla xoole nu mbay sunu ngëm nu yóbbu sunu ngëm nu yóbbu sunu ngëm nu yóbbu Tidiane si yaay ki nu doy Cheikh Tidiane si yaay ki nu doy Cheikh Tidiane si si yaay ki nu doy Cheikh Tidiane si yaay ki nu doy bismillah ma fent fi way maa ci feelu lu jàmb fi xëy way sangam te way moo taxiti ñéeral na ko sëñ mu niiru sëñ mu niiru sëñ mu niiru sëñ mu niiru Cheikh Tidiane si tool ab cëram dundal na ko jaajëfal maktu jaajëfal maktu kër gi jaajëfal maktu nguur gi jaajëfal maktu sëriñ si jaajëfal maktu famille bi jaajëfal maktu gor yi jaajëfal maktu nguur gi jaajëfal maktu famille bi jaajëfal maktu réew mi jaajëfal maktu nguur gi jaajëfal maktu sëriñ si jaajëfal maktu école yi nguur gi jaajëfal mag nguur gi jaajëfal mag nguur gi jaajëfal mag to ndaxte moo ñaqal mbay si xol ko sit jël gara toppal ko ko góor gi bàyyi ko góor gi bàyyi ko dal woolu seex say garat fam bam solal nan ko loolu def ci man wàcc na dafa ko bàyyi lii xeeb bàyyi lii xeeb bàyyi lii xeeb bàyyi lii xeeb bàyyi lii na xeeb mag mu toog di xol fab ngërëm yëkkoon ma tutul muy xuloob xam nga ab keleel loxo ab keleel loxo jëf ba mag ña ni ko tey yaanu doy samp ko ay xul du tax ñu sempi ko yàlla yonen Maodo Malick Seydi Mbay Aji Mansour moo ko woo ak timis ca këram Seex Tijaan ànd fàq sax amat loo mooy màggi kii Aji Mansour Aji Mansour Aji Mansour Bay Abib Bay Abib jox na ko téere ba atu daaw ren mu dem bay Habib bay Assis bay Assis bay Assis bay bay Jamil bay Jamil boo demee Faas laaj bay Jamil Moustapha boo Faas laaj ko ko bay jëmil boo Faas laaj ko ko Soora Mbay Soora moo ko wax kooru ren këram muy firi alquran ca këram sóora moo ko wax kooru ren muy gërëm Cheikh Tidiane ca këram muy firi alquran ca këram Seydou Nour Seydou Nour moo ko jox jàllabem ca Dakar sandu kurusu ba gammu maa ko woy Cheikh Firi Seydou Nour yëg si fu sànni ko mbubbum ma ko Cheikh Tidiane saaxibal waxtu wi muntaga taal muntaga bay me géy njare muntaga bay me géy njare bay la min jeen bay la min jeen bay ma tar jeen bay la min jeen bay ma tar jeen aji mud waddu mbur aji mut padd mbur Modou Gueye ca Mbuur Moussa Seck Barñiga Bay Aji Cissé me dëkk Kees mag ñu yiw ñi mag ñu yiw ñi mag ñu yiw ñi mag ñi yiw ñi ndaw lu xëy di gërëm ko ñii gërëm ko ku ko xeeb ku nga daw tëb yàlla jom ji mag mu ndaw taxaw at yu néew du tax nga ni bul awaaw toolu bokk gi kay gajak diruj larme tam yadal yàlla moom gërëm na ko Cheikh Tidiane si dal ci toolu bàyyi woo sa wàll yow sa waar gisee na ko dëpp nigi géeja way ji dëpp nigi Demba Diop ji dëpp nigi Ibba Mar ji dëpp nigi seen fuwaar ba dëpp nigi seen keskaay ji

jëmb njaay jë naas bay teer ñu na rabbunta baraka aw rabbunta haddasa wala rabbunta alaalo abiyallahu lépp ne yi jëmb njaay oto bay teer ñu na rabbunta baraka aw rabbunta haddasa aw rabbunta alaalo abiyallahu mboolem réew mi foofu taxaw def nga fay école mboolem réew mi foofu taxaw def nga fay école mboolem réew foofu taxaw def ko fay mboolem réew mi foofu taxaw def nga fay ñuy taxaw di jàngale sa morom gi ku ko xeeb. defalal ku ko xeeb. defalal ku ko xeeb. ku ko xeeb. ku ko xeeb. defalal nit ki sampi alim. li mu na moom. lus la nga tontu ko. te nga bàyyi kii mu liggéey xam ne lii yàlla ko ko may taalu yàlla jóg di ko fay weer sa bopp. Babacar si lii mu tëral nan ci jaar. Babacar si lii mu tëral nan ci jaar. yàlla dol. adaram. nan di ñaanal yàlla dotti fa nan di ñaanal yàlla dotti fa nu jubbu dëkk yi nan jubbu dëkk nan jubbu dëkk nan jubbu jamagan nan jubbu jaksaaw nan jubbu tiijaan nan jubbu mbitoo nan jubbu xaadir nan jubbu laayeen nan jubbu catholique nan jubbu nguur gi nan jubbu seex ne nan jubbu dëkk nan jubbu dëkk nan jubbu jubbu dëkkee nan jubbu dëkkee nan jubbu dëkkee nan jubbu dëkkee nan jubbu dëkkee nan jubbu tiijaan nan jubbu muritoo nan jubbu xaadir nan jubbo laayee nan jubbo catholique nan jubbo nguur gi nan jubbo parti yi nan jubbo dëkk yi nan jubbo dëkk yi nan jubbo doom yi nan jubbo baay yi nan jubbo mag ñi nan jubbo ndaw ñi nan jubbo góor ñi nan jubbo jigéen ñi nan jubbo dëkk yi nan jubbo dëkk yi nan jubbo dëkk yi ni la woon Mansoor ne fa Mansoor ni ñawoon Mansoor ni nawoon Mansoor ni kawoon bu ni soppi dara Mansoor ni lawoon fawoon ñawoon nawoon kawoon bu nu soppi dara Cheikh Tidiane si ma tawoy ya Mansoor si ma taŋoy yal na buur wi baal ki wi xëy ñëpp dem